l'honneur que de presse. Euh, c'est difficile de prendre la parole après Maître, Maître Faye qui est quand assez éloquent. Comme il l'a dit, il a si bien dit, euh, bu may jël parole je du ma du ma def ni ñëpp di def ñëw lire discours dem dinaa wax ak yéen. naturellement comme il a dit et nous allons échanger par la suite waaw maa ngi leen leen sant waaw lu ñu tax a euh, daje fi tey mooy présenter suñu mouvement national suñu kuréel bu bees bu tudd union pour un Sénégal juste voilà union pour un Sénégal juste nag balaa ma si ñëw je voudrais un peu ñëwaat ci sama parcours en fait ça ne tourne pas autour de moi ça tourne autour de Sénégal yoo xam ne dañoo toog waxtaan euh, tënk lii tey mais comme je vous le comme je suis la personne morale de l'organisation il est toujours bon de revenir sur les choses et de les contextualiser mooy li may wax souvent rek xam nga si wàllu citoyenneté parce que ça c'est un regroupement citoyen il faut le préciser lu gën a important c'est que la euh, c'est le parcours de la personne morale am na koo xam ne peut dafa judd fekk papam nekk un politique wala qui est dans la la la société civile mu gis loolu ñu topp ko parce que ku ne souvent lu papam wala famille am di def c'est ce qu'il fait mais man tey ni mon travail ma carrière ne me prédestinait peut-être aujourd'hui à m'adresser aux Sénégalais devant des caméras Donc il est bon de rappeler et de contextualiser un peu les choses voilà euh, comme ni ngeen ko xamee man officier de gendarmerie laa woon euh, dugg naa gendarmerie 2012 nekk fa ba 2021 euh, euh, ñu radié ma en 2021 des cadres voilà dans des circonstances yoo xam ne Sénégal yëpp xam nañu kon jarul ñu si ñëwaat mais ce qui est important c'est que après cette radiation Moi, je suis aussitôt passé à autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu me plaindre. Comme on m'a dit que j'ai fauté sur la base de loi te man defere naa ay nit sanctionné ay nit man j'ai mis en tôle ay nit tëj naa ay nit armée parce que armée boo defee faute dañ lay tëj donc moo tax moi j'ai aussitôt accepté c'était le destin quoi c'est normal et il y a des personnes plus indisciplinées que moi dans l'armée mais qui y sont et qui sont même devenues générales donc loolu y a de souci Mais eh, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, aussitôt après, je suis autre chose. ma def université dem jàngi tout ça c'est et aussi bu ma demee université dama ko yëgal Sénégal yi en fait parce que je voulais aussi un peu que les gens suivent mon xam nga am na fooy jaar da ngay wut nit ñi fi ngay jaar parce que tu n'es par l'exemple de tout le mais y en a quand ay nit yoo xam ne même si c'est dix personnes ñooñu bëgg nañ xam yow foo jaar pour t'en sortir après faut pas tomber dans l'oubli parce que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles j'étais radical. Donc aussitôt après, je suis parti à l'université, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je remercie le docteur Diallo, qui m'a beaucoup soutenu, et mes camarades aussi avec lesquels j'y étais. Après ça, fait, après avoir bon amené mon diplôme de master 2, je me suis inscrit en doctorat. Aussitôt après, madame, où je suis allé. Je suis allé bizarrement à peine arrivé j'ai fait trois jours en fait quand je l'ai mis une fois dans mon CV waa ji reetaan quoi mu ne ma jàngale trois jours est-ce que jaroon si CV ma ne ko ah mais j'ai été recruté ah j'ai commencé te balaa ñu lay recruter recruter je e qu'on examine ton dossier donc boo fa defee vingt quatre heures sax ça fait partie de votre euh, parcours après loolu voilà bu ñu ma tout le monde le sait en fait je veux pas revenir sur les détails pour ñu bañ a gudd en ensuite j'ai été contacté par le maire de Dakar Euh, bu ma ñëwee foofu aussi bu ma commencé aussi c' est un ministre du gouvernement qui sorti pour dire que pour que ma liggéey ko peut être que le maire euh, si poche am la may fay voilà tout tout bu ma koy raconté en fait c' est pas pour me victimiser en fait comme je vous dis c' un parcours c' intéressant que ngeen xam fu ma jaar ba egg si fii ça nous permettra de débat ngeen xam ne c' pas quelque chose qui a été. Euh, pensé d'avance il fallait aller dans ce vous savez que nit du am liggéey ba pare caaxaane ko ba ñàkku ko voilà boo demee di liggéey wala di jàngale c'est parce que tu veux yi y rester et ba pare mun a partager sa expérience léegi après euh, cette étape là je suis mais comme le travail que je faisais est un travail qu'on peut faire à distance parce que conseiller quelqu'un ce n'est pas être présent voilà euh, léegi euh, j'ai un peu souhaité continuer bi études comme on m'a dit que je ne peux enseigner qu'en ayant un doctorat xam nga bu la autorité waxee ne pour nga jàngale foog nga am lii tu n'as pas besoin de te plaindre va chercher ce qu'il t'a demandé et reviens c'est toujours fait moo tax à chaque fois bu ma demee fenn ñu tere ma fa dem damay dem jëndi lenn et après ce après cela ma bëgg dem ci continuer jàng j'ai déposé mon visa Mais là aussi, sincèrement, le, trai le traitement qui a été réservé à nos dossiers m'a un peu surpris. Voilà, moi, je ne sais pas si preuve, parce que moi j'étais enquêteur. Un enquêteur, il, il, il, il, qualifie toujours sur la base de preuves palpables. Mais comme je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Mais sincèrement, pour quelqu'un qui a payé des frais de dossier, nous donnons là ça passeport comme ça, euh, tu peux te demander si c'était normal. Est-ce que c'est a voilà donc après ça voilà j'ai continué mes activités je suis parti au village ma dem fa sama village foofu la ma nawet bi fekkee tout ça parce que j'étais tenu en à un dossier en fait xam nga quand j'étais à quand j'ai été licencié à remercier à l'IAM élection législative mu ngi doon ñëw ñu bëri dañu ma proposé ne ma mon capitaine boo déposé rek di nga nekk député nous on va te te soutenir et tout mais man du ma dugg si dara pour régler des comptes wala pour régler non li may def moo koy def day dal sama xel parce que j'étais tenu par mon dossier boo xam ne il n'était pas encore vidé et quand vous êtes tenu loo tax lu tax ñu rajo après dix ans de service après tout ce que j'ai subi comme difficulté au cours de ma formation en fait ceux qui sont militaires eux ils savent moi au cours de ma formation j'ai même j'ai j'ai mon dossier médical est à l'infirmerie on m'a brisé deux doigts sama ñaari doigts yi dañoo dañoo dàmp dañ ko def donc ah c'est autant de choses que léegi bu ma waxtaanee ak ñi ñi ñu wax ma man leen non non man je ne veux pas euh, régler les choses comme ça de façon man bu ma demoon tey assemblée nationale je ne règle pas le problème des Sénégalais parce que suñu niveau de démocratie eggul foo xam ne un député peut imposer de cela c' est vrai que y' de très bons députés là-bas am na vraiment ñu si def liggéey bu am solo Guy Marius Sagna ak Pape Djibril Fall vraiment dama leen seetaan te des gens que je boobu on est on est on est on est on est man leen noonu du ma engagé wu si yoo xam ne vraiment juste pour avoir un poste nañu bàyyi dossier bi boo xam ne moo tax tey ñu rajo ma ba ñu vidé parce que c'est si une question ma man lépp li may def comme ni ma lay li ma lay sama xol ak yàlla laa si jiital voilà et dans le traitement des dossiers aussi man j'ai fait mon travail voilà je suis pas entré dans les détails kenn gisuma si ay affaires yu ñàkk fay kenn musuma gis man si li ma liggéey ba léegi kenn musul dégg dossier bu fuite pendant tous les centaines de milliers de dossiers de j'ai fait bu mos a dégg tu ne verras même pas une phrase sur internet boo xam ne ça vient de moi wala ñu la fi parce que c'est pas possible parce que moi je suis pas dans ça man je servais mon pays je servais ma patrie je ne servais pas des personnes voilà malheureusement c'est le souci Ousmane Faye est revenu sur boo deful la volonté des autres qui est un ennemi à abattre c'est ce explique tout léegi nag loolu yëpp bu xewee taxul ma baisser les parce que je voulais que comme je voulais ceux qui ñu xool fu may jaar gis nga dans bi vie il faut pas baisser les il faut vous battre xam nga lépp la yoon may def ko gis nga toutes des grandes personnes yoo xam ne tey dañuy yox seen seen seen seen ay ay. ay ay jaloore c'est des personne qui nous qui n'ont jamais baissé les les a des exemples il y a Cheikh le le le professeur Cheikh Anta Diop nous avons Cheikh Amadou Bamba nous avons El Hadj Malick yoo xam ne si seen époque il n'avait même pas ce que nous nous avons aujourd'hui aujourd'hui man bu ma bëggee wax ya tout le monde est la et même dans mon village de plus reculé où on n'a pas de réseau nit ñi mën nañu yegg si seen peut-être si seen je ne sais pas sur les arbres pour pouvoir donc ñun bu ñu yàlla mayee loolu on va continuer à nous battre gis nga booy xeex bul xool souvent ñu la bañ parce que ñooñu tu ne pourras jamais les convaincre parce que ils ont déjà un avis tranché sur toi et ça je le sais donc ce qui fait que tout le temps man bu may def je vois si c'est seulement ma grand ou ma mère et mon père qui doivent me suivre quand je suis devant vous je fais comme si c'est seulement eux qui parce que les autres n'ont pas mon temps parce que je ne pourrai jamais les convaincre. Mais l'histoire les convaincra. C'est ce qui est important. Donc il faut jamais baisser les bras, il faut battre. Les gens diront n'importe quoi. Si vous suivez un peu mon parcours depuis 2021 et maintenant, y a eu tellement de conférences de presse où on a prononcé mon nom que je sais que le jour où j'ai dit que je ferai une conférence de presse, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ceux qui sont convaincus je vous invite à y venir des milliers de fois. Donc, euh, c'est pour ça, c'est pour cela. Après que le dossier soit vidé, euh, j'ai été contacté toujours par Nima Wartana parce que ça, fait, ça remonte au loin. Si vous voyez l'organisation, vous savez que ça, c'est des personnes qui ont du Wartan. Même l'appellation, ce n'est pas une chose qu'on a précipitée. Peut-être que la période, elle peut un peu être suspecte. Mais c'est normal parce que c'est une période, il nous reste 4 mois pour des élections présidentielles. Mais au cours de ces 4 mois, dites-vous que le destin de beaucoup de personnes d'entre nous seront déterminés. Ça, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, je me plains pas, comme je vous le Mais si aujourd'hui les mêmes pratiques continuent, mais à partir de février 2024, il faudra m'exiler. Vous pensez que je peux résister encore 5 ans donc loolu bu fekkee noonu lay doxee moom ça va être compliqué moo tax comme je vous dis moi je n'écoute pas souvent ce que les gens disent je regarde les intérêts de mon pays les intérêts des Sénégalais et je me bats avec ça voilà c'est ainsi que nous nous sommes nous nous sommes réunis nous avons voulu un peu faire connaître aux Sénégalais notre notre mouvement mouvement bi dafa tudd pour un Sénégal juste boo gisee tax bi tuddee ko pour un Sénégal juste c'est par rapport un peu à mon parcours ça ne tourne pas autour de moi mais c'est important parce que tey boo gisee ñu woote bu fekkoon ne fay kese moo woote peut-être toutes ces personnes n'allaient pas venir si tout le monde est là mes amis et et autres y en a que je ne connais même ñoo xam ne mosuma leen gis voilà. Imam Dramé ñëw na fi ak ay nit ñoo xam ne ñooñu mag nañ ma mag boo xam ne mag nañ sama papa sax donc c'est loolu boo ko gisee parce que ngay xam ne les nit ñi bu ñu la respecté comme ni ma la ko combat jiitalal ñu le respecte voilà le mouvement il s'appelle pour Sénégal juste c'est vu le parcours que j'ai que que que euh, c'est-à-dire vu le parcours par lequel je suis ba ma egg fii parce que boo leen gisee ni ñu ma ni ñu ma ni ñu ma sonnalee ma sax parce que pour man comme li ma lay wax rek balisage la rek xam nga destin nit tali la da jël sa oto rek di dawal si tali bi am na ay doodaan am na ay jàddukaay am na ay obstacle mais c'est à toi de choisir boo e ba jàddukaay jàdd ñëwaat jëlaat tali bi outil continue maintenant y en a qui euh, continue tout droit qui n'évite pas les dos d'âne ñu def accident y en a qui n'évite pas les obstacles ñu def accident y en a qui de d'être prudent donc moo tax euh, jarul victimiser wu pour man c'était un chemin et peut-être qu'il fallait arriver à ça parce que c'est plusieurs portes qui étaient ouvertes et toujours ouvertes mais il fallait que moi je choisisse la porte par laquelle je pourrais servir aujourd'hui. Et pour moi, c'est la porte de, de la lutte contre l'injustice à travers ce mouvement. Voilà, euh, parce que tey li ma am ci expérience même si ce n'est humble, c'est pas une très grande expérience comme je vous dis un capitaine peut-être pour vous les civils c'est très grand mais dans l'armée moi je fais partie des plus grands subordonnés si aujourd'hui on mettait en rang la gendarmerie les officiers peut-être je partie des dix les moins gradés c'est e pas très grand, c'est rien. Mais la grandeur aussi, c'est pas un e grade, c'est un état d'esprit. voilà nit looy def bul xool ñeneen ñi ne vois pas parce que da ngay gis kenn koo xam ne il a un rang de ministre mais vous le suivez mais vous vous demandez mais ce que cette personne la c'est c'est vraiment est-ce que moom fu mu toll est-ce que moom la voilà loolu moo tax ku ne dafa war a gëm boppam dem ak ay principal léegi les les objectifs de ce mouvement bëggoon naa si ñëwaat tuuti voilà objectif mouvement bi mooy lu si gën important mooy ngeen xam ne c'est xeex lépp luy xeex injustice xam nga injustice dafa bëri ay ay ay façon souvent ñun bu ñu waxee injustice rek on passe au tribunal euh, décision judiciaire yi ñuy rendre foofu c'est pas ça gis nga même la composition du tribunal même l'autorité c'est-à-dire nu ñuy defaree autorité ministre de la justice procureur et autres loolu rek sa a été c'est injuste parce que imaginez-vous par exemple un procureur de la république bu dem def concours ENA il se bat pendant trente ans quelqu'un qui aujourd'hui peut être connu comme un délinquant demain il passe par les lois de la société mu dem nekk ministre de la justice et il doit commander ce ce ce procureur là mais ça c'est injuste Donc il faut penser à un mécanisme qui permet à cette personne d'être libre. Parce que souvent, nous, on voit toujours en fait, les actes que la personne pose. Mais on, est, on oublie l'être humain et notre, un peu la composition de la société africaine après les, la colonisation. Nous sommes juste nous de manière générale. C'est un peu difficile parce qu'il faut être courageux. Vous savez, tout le monde n'est pas forcément le juste d'être <laughs> ou le capitaine à ah, un certain moment mu ne bañ naa non il y en a qui pensent qu'à leur famille et on peut pas le reprocher là parce que c'est comme ça que ça a toujours marché moo tax moi j'ai été un acteur de la justice moo tax man mënuma critiquer juste man tout le temps loolu laay wax nit ñi man leen man j'ai déféré des personnes yoo xam ne actuellement ils ne sont pas encore jugés mais si moi aujourd'hui je critique la justice je suis malhonnête ça je vous le dis man li ma mën a def mooy andi ay solution te je me battrai en personne qui après être sorti du trou, voudrait refermer le trou pour tuer le loup. Il ne faut pas faire ça. Et si je sors, je viens, comme l'a si bien dit notre grand-mère, dinaa xool nu ñuy liggéey parce que en fait ce n'est pas moi excusez-moi du terme je que j'utilise souvent c'est nous tous mais xam nga boo boo yàggee boo boo commencé c'est un peu dur voilà avec la communication et tout moi je suis quelqu'un koo xam ne dama xaw a dëgër bopp boo xoolee quand on commencé cette affaire on m'a demandé d'aller de des quand je suis parti, on me demandait de sourire comment, comment et tout ça. Mais on va aller vendre au Sénégal une image que je n'ai Je ne voudrais pas ça. Moi, d'avoir ça, je ne veux plus jamais reprendre ça. Je voudrais parler des personnes qu'on m'amène. Mais imaginez-vous, vous portez un costume, il a un haftan en bas, on vous photographie, on coupe ici. Mais toi, hein, tu sais que ça, c'est faux. Mais c'est ce que tu vends au Sénégal. Parce qu'on nous a vendu une certaine manière de penser qui fait que il ne sait pas même que la culture même est hypocrite nous on ne connaît pas ça ñun xamuñu loolu boo xoolee les africains s'identifient toujours à ces personnes qui leur parlent honnêtement mais souvent boo ko defee loolu rek danañ naan kii nurul ak yeneen yi de kii jullit la de non la personne est juste restée africaine c'est-à-dire dañu xañ loo xam ne c'est tellement important qu'on ne peut pas l'imaginer moo tax il faut qu'on se batte pour un peu ramener euh, l'homme africain dans son contexte parce que ça aussi ça fait partie c'est-à-dire essayer un peu à l'Africain l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop. Parce que le professeur Cheikh Anta Diop, toute sa vie, a cherché à réconcilier l'homme africain avec son histoire. te pour nga mën a réconcilier nit ki ak son histoire foog nga jàngal ko yow ay kan foo jógee qu'est-ce que tu as pu accomplir aujourd'hui on parle de l'immigration clandestine je le disais une fois sur un plateau tel yow sa doom bu juddoo ñu jàngal ko ne yow sa maam musul def dara dafa doon yëg ay buy di aji di dem si àll bi di di rëbb ay truc keneen moo ñëw découvrir ko jàngal ko def ko nit mais tu penses que toi tu t'attends quelque chose à ce que ton grand-père te t'oriente dans la vie non tu dis keneen ki comme moo fi ñëw orienté ma kon man kooku lay topp alors que l'histoire a été falsifiée donc il faut revenir wax africain yi africain yi que ça c'est pas vrai a créé quelque Donc ce qui nous permet de plus servir nos patries. Parce que l'objectif, encore une fois, l'une des plus importantes, c'est de réconcilier l'homme avec sa patrie. tey boo xoolee tellement bu ñu ma boobu bu ñu pas moi seul nous sommes nombreux à le vivre aujourd'hui je voudrais je ne voudrais plus donner exemple aujourd'hui ay nit ñu ngi si kaso te defuñu dara donc ils cherchent seulement à par exemple quand vous prenez des xam ne il a fait combien d'années pour servir son pays kooku il a récolté combien d'argent pour l'État ko tey nga tëj kooku bu génnee loolu rek mun na mun na yàq xelam day naan ah man dañu may liggéeyal nii du ay nit léegi bàyyi ma fexe dugg dans la corruption je vais chercher un maximum de de fonds pour assurer l'avenir de ma famille c'est-à-dire un homme borné comme ça qu'il pense mais l'homme intelligent il sait que ceux qui m'ont mis en c'est d'abord des personnes peut-être qui sont contraintes de le faire. mais c'est après un système qui est imparfait. Donc il faut que je me bats pour que ce système se redresse. À long terme et à court terme. C'est-à-dire, au-delà, après avoir un peu euh, refait le tour des objectifs, c'est-à-dire que je me suis dit, je suis Sénégalais Parce que xam nga contexte bu ñu nekk c'est un contexte électoral c'est bien c'est c'est d'ailleurs euh, ce qui vraiment c'est lu lu ñu jàppale la parce que dina fexe que ñu am visibilité pour que sénégal yi dugg si ñu mën si waxtaan ñu mën a tënk ay mbir ñu mën a gaaw ñu mën a gaaw mën a créer ay centre de réflexion pourquoi pas bu école tëjee ñu mun a entrer am contact avec les universités avec les milieux scolaires ñu mën a waxtaan tuuti. par rapport un peu la formation de la jeunesse des femmes et un peu partout sur le milieu urbain mun a waxtaan nit ñi pour mën a am tuuti tuuti avec pour pour former les gens à ce que parce que pour que nit ñi mën ñu comprendre il faut d'abord leur former à ça moo tax ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu mën ñëw woo def nañu suñu numéro yi si page yi vraiment on appelle tous les Sénégalais à y pour que ñu mun a trouver ay solution comme ni ma wax ñu arrêter un peu de critiquer. voilà c'est vrai que ceux qui critiquent aussi euh, le fond de manière objective te lu ñuy de manière objective te lu ñuy def day tax que l'autorité se remet en question mais il est bien aussi de proposer et nous nous sommes dans la lancée de proposer léegi pour pour finir euh, maa ngi pour finir maa ngi leen di voilà baal leen ñu de y a un problème technique voilà c'est indépendant de notre volonté voilà pour finir ah léegi pour finir pour finir euh, dama bëgg gërëm Sénégalais yëpp ñu ñuy suivre à travers les réseaux sociaux à travers voilà pour terminer vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Sénégalais yëpp surtout une mention spéciale aux journalistes qui nous ont fait l'honneur euh, vraiment d'être présents voilà surtout di insister sur un fait voilà surtout di excusez-moi waaw maa ngi je disais que pour finir maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier Sénégalais yëpp surtout et pour finir je voudrais vraiment insister sur un fait vous demandez comme je l'ai si bien dit au départ sur le fait qu'il ne faut pas baisser les bras quand vous vous battez vous na bu battez pas pour ceux qui vous critiquent, pour ceux qui vous voient toujours en mal. bu vous battez pour ceux qui vous respectent, pour ceux qui pensent que votre voix porte. En suivant cette voie, euh, comme je l'ai aussi encore, euh, excusez-moi de la répétition, boo gisee tey eh, ñuy wax ñeneen tour yi en Afrique et dans le monde entier c'est parce que nit ñi dañoo muñ ba pare nekk ci yoon ba pare continuer détermination et eh, j'ai aimé une, un entretien que j'ai eu avec une autorité, c'est Nelson Mandela. Et ça m'a beaucoup Parce que imaginez-vous nit ñu tëj ko 27 ans c'est-à-dire à 27 nit judd na fa mag am ay doom am kër mais yow yaa ngi muñ ba pare génn doon président loolu si loolu bu mënul servir nit euh, wala ay Cheikh Amadou Bamba ñu exilé la tu reviens après Et 100 ans après, on parle de toi encore de la manière la plus, la plus extraordinaire. Il y a tellement d'exemples, Gandhi et autres. Voilà, nous, nous, Khalat époque, la pression qu'ils vivaient au moment où ils avaient entamé leur combat. Nous, nous, nous, tout le temps, il faut toujours vous rappeler qu'il yaa a eu des hommes, ici au Sénégal et ailleurs, qui ont eu la possibilité de négocier pour avoir des privilèges. pour être ministre, pour être, pour président, ou pour être quoi que ce Mais ils ont refusé de le faire. Et ils sont partis en prison pour des idéaux, pour un combat. Donc à chaque fois que vous devez vous faire corrompre, ou que vous devez choisir la facilité, pensez à ces personnes qui sont sacrifiées pour vous et qui continuent. Et il a même aujourd'hui qui sont en prison. S'ils avaient voulu négocier, ils ne seraient pas. Donc vous, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans sincèrement, moi, je ne vous demande pas de vivre misérable. Si je vous dis que je ne pas au restaurant avec mes enfants, que je n'amène pas ma femme au marché, je vous mens. Je le, je le fais comme tout le monde ici. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Toujours vous rappeler ça, c'est important. À chaque fois que vous devez choisir la facilité ou d'aller du mauvais côté, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui pourrait plus avoir le tri, mais il n'a jamais voulu négocier. Et il n'a négocié pas. donc loolu c'est très important nga euh, euh, souligner ko parce que aujourd'hui loolu moo ñu sonal tout le temps les gens ont la possibilité de faire de grandes choses mais tout le temps on leur dit boo jël keneen ki day jël boo deful keneen ki day def après nga def il faut être mentalement fort vous savez les gens comme moi on dit dafa dëgër bopp certains moom on dit que j'ai perdu la tête c'est pas important comme je vous dis y en a qui pensent que la bonne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 par sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps